rafetlu Ablaye na Seck li mu jël du ko rafetlu ndaxte adduna to tubaab neen dans l'histoire des sociétés humaines et en tant que conseiller du président de la République dama ci waxtaan moom lu bari dafa am ñetti xaajaloo li ñuy wax les trois grandes différences ñi am ak ñi amut benn ñi liggéey xel ak ñi liggéey loxo ñaar travail intellectuel travail manuel ñaar li nga xam ne mooy xaajale kaw ak taax Macky Sall ne bis ki tey jàpp naa ci sama nguur que kaw ak taax warut am ndax réew mi benn la la war ki nekk dakaar moo war ki nekk Sédhiou moo war ki nekk Ziguinchor ak ñoom seen kon puisque réew mi benn la te ñu seet ne Dakar matul sax bu dee woon tey dëkk Sénégal téeméer la matul sax benn ki téeméer boobu tey benn nit ci ñeent Sénégal dëkk Dakar lépp nekk diggante euh, benn diwaan boo xam ne mu ngi diggante Dagana Kaolack Sédhiou ci ci ci ci ci càmmoñu loolu ci la lépp nekk Sénégal loolu du yoon moo tax ñu ne di def équité territoriale maanaam yemale dëkkuwaay yi te ku nekk fa nga dëkk mën fa am li nga xam ne mooy tawféex ak yokkute loolu la ñuy wax toog tekki toog tekki territorialiser les politiques publiques faire des territoires des bassins de vie mooy fa nit dëkk mën faa mën a tekki loolu mooy li nga xamante ji moo na fi waxtaanee ku ci nekk am na ci wareef ku ci nekk am na ci ay sañ-sañ te war nga ci liggéey bu baax a baax. coow li dafa bari tey ñu nag Sénégal moo ñu itteel man faruma gauche faruma droite képp ku ma xam mës nga ma xam ci loolu ci loolu laa nekk looloo tax tey pouvoir opposition mu mun leen dajale fii ku nekk wax sa xalaat directeur de cabinet xalifa Sall est la salle il est il a écouté, il a retrouvé le camp d'Ousmane Tanordien, il a retrouvé le camp de Sall, parce que l'UXAR, c'est le conseil politique, tout le monde est là. Donc les gens. kon ni ko doon waxee ñoom ñëpp dajaloo nañ fi pouvoir opposition li ci am solo rek mooy ñun li ñu itteel mooy lu jëmale réew mi kanam parce que ndakaaru ni ma ko waxee sànq mooy capitalu Sénégal Sénégal juróomi ville la ndakaaru gi ñu dëkk ñii fekk fi baax ñii baax fekk leen fi. Pikine ak Guédiawaye ak euh, Rufisque ak Thiès 557 communes ñoo fi nekk 123 arrondissements Dakar boo fi ñëwee te am na 19 communes mooy fukki commune ak juróom-ñeent ndax communes yooyu dañuy garder découpage bi 96 la ndax dañu leen di boole ñenn ñi ñu gën a am doole am na boroom xam-xam yoo xam ne dañu naan tey nañ maintenir statu quo bi ñenn ñi nañ ko yóbbu ci 4 ndax ñu gën a am doole gën a am koom ñenn ñi nañ ko def 9 ñenn ñi def ko 10 mais loolu lépp bu ñu ko ba nga xam ne dans des cadres citoyens opinion bi tey xam nañ lan la ñuy def dafay gën a rafet maire de Dakar dañ koy nommer bu ñu ko nommer xam nga loolu wax la joo xam ne dañ ko xam ne man gëm naa ne xaw ma lan moo nekk ci xelu Macky Sall mais yaakaar naa ne loolu nekk ci xelam ndax gëm naa ne tey jël maire Dakar ne dañ koy nommer recul démocratique la gëm naa ne moom du xalaatam gëm naa ne ki nga xam ne aussi moo jiite au conseil des collectivités territoriales du xalaatam xaw ma lan moo mbébatu ci biir ak lan la ñu namm ëllëg def mais gëm naa ne man nomination maire Dakar weesu nañ ko ndax ndakaaru loxo yi mu jaar yëpp yegg si fii tënk naa ko sànq foo xam ne Blaise jaar na fa Lamine jaar na fa. Samba Gueye jaar na fa Lamine Diack jaar na fa Joseph Gomis jaar na fa ba ci Mamadou Diop ba ci Khalifa Sall tey jii euh, Soham El Wardini en passant par Pape Diop réew moomu nga xam ni am na euh, wax dëgg yàlla jéego yu bari yu mu def li am solo mooy tey na ñëpp rek jéem sumb sumb bi te rafet njort ñaaw njortu xam nga baaxul ndax kenn xamul ëllëg. nu muy tëdde waaye gëm naa ne lépp loo xam ne war naa am rek lu war a rafet la lu war a taaral démocratie la parce que man nag démocratie ak état de droit man loolu laa gëm man li ma gëm daal mooy par parloo yàq na lu bari ci réew yi pouvoir bi boo ci demee am na ci safaan ba mais am na ci nit ñu baax boo demee ci opposition am na ci safaan ba nit ñu baax am na ay gor ñoo xam ne nag bokkuñu fenn Sénégal rek moo leen itteel moo tax man. yàlla ma ko ciy gërëm di ko sant waxtu ma wootee boo déeb dañ may wuy si parce que li ma itteel képp ku ma ci wéetal dama la koy wax Sénégal moo ma itteel man dew ma gauche dew ma droite maa ngi jàpp ci réew mi daal lu yàlla def ëllëg gëm naa ko ndax yàlla moo yor de Sénégal kon nag maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm nag wax dëgg yàlla presse bi ndax man ci laa bokk waaye euh, du tax ma leen di gërëm dama gis liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey di ko taataan fépp fu ngeen war a dem rek pour taataan da koy taataan parce que démocratie bu ñu koy wax liberté de presse presse dafa am rôle bu am solo bu mu joué ci réew ci état de droit ak démocratie.